tees ci Zik FM di journalu faits divers yi suba su ne di téere demi jotee altine ba àjjuma tees di xew-xewu jamono ci biir quartier yi tees di ay faits divers yu ngeen di nettalil seen bopp yéen ñi suñuy auditeur tees ak Ahmed Aidara asalaamu aleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ok waay jaajëf waay Chimère. Chimère ci loo ne. ah. nga ni. sant yàlla. ok. alhamdulilah. Euh, Aïssatou Diallo 17 ans. mu doomu Sukay te ak Saliou Diallo ah waaye kii mag la kat 17 ans daa riir booru maris hmm. waay képp koo xam ni gis nga ko daal moom Aysatu jàllo mii na nga woote ci 77 437 24 24 waaw Mantoulaye lii moom. dafa demoon jàngi de ajaratu may si soxog mel. kenn gisu ko heure wàcc. ñu nuyu ba léegi nii. ñu laajte école ba ñu ne mosu fa egg Fatim Jamaa ngi lay nuyu daa jàngi woon nga mhm. léegi après. ba mu heure wàccam jotee kenn gisu ko ñu koy wër dem nañ seen école ñu ne démb musul ñëw ci école bi egsiwul daal. ba léegi nii. ba léegi nii kenn teg ko bët. loolu. 17 ans la am di jàngi côté Mariste. waaw. ñu toog ba heure wàccam passé gisuñu ko. Mhm. ñu dem wëri ko seen école mais école bi dañ ni ñoom jàngi siwul tey maanaam démb toute la journée duggul ci école bi egsiwul. Ah. Hmm. loolu doy na waar de yàlla yàlla na yàlla na ko yàlla nit amin amin amin man de man de nit ñi di réer may laaj Mansour 2012 ba tey ana nit ñi ah man nit ñi di réer laa xamul lan la ah rek maa ngi gis benn xale boo xam ne dañ ah. ko doon seet ñu toog ba ci kanam ñu ne gis nañ ko ñu teg ko seen buntu kër ci état bu doy waar ba tey nag amaatuñu. bu jigéen bu góor bu jigéen. comme moroomu xale bii réer la rek. nga ne dañ ko dafa réer dix jours. dafa réer non dafa réer. ñu koy seet. Mhm. bañ annoncé ko ci réseaux sociaux yi. ñu toogaat ba ci ay ngoon gi ñu ne feeñ na. seen mhm. buntu kër lañ ko fekk. Mhm. mais ci état bu doy waar. Ah. kon maanaam ñu ko jëloon daal dañ ko indiwaat. ba ca buntu kër ga mais xam naa dañ ko gaañ joxaata joxaatagun ci plus d' information ci ci ci loolu donc. Euh, xëy na waar. ñun jaaxle na. jaaxle nañu kay. ñun ko jaaxle nañu kay ngay wax parce que loo xam ne dama lay laaj fan la nit ñi ne fan la nit ñi ne. xam. te hmm? doo ma tontu. wallaay moo ma jaaxal. Ah, ah, baax na. Euh, hmm. seen émission bi nag Expresso waaw kay teral baa ngi noonu nag moom moo leen ko may ak euh, Jolof ci kan waaw di nuyu nag waa Expresso ak waa EDK waaw waa Jolof ci kan yëpp leen di nuyu di leen siyaare bu wér waaw kay waay euh, fi nekk nii nag naa daal boo bëggee dëgg-dëgg daal teral jàngoog Expresso innovation tour jàpp leen nag euh, fi mu nekk ni Expresso moom day gën di jege nag entrepreneur yi waaw kay. gars moom léegi moom dépassé nañ dugg nañ nag léegi nag. ci lu jëm Expresso voilà nag. ku war am puce Expresso. waaw wax dëgg yàlla Expresso day dëgg dëgg. tàyyiwuñu tàyyiwuñu. ah déedéet déedéet déedéet. gëm naa ni boo leen di déglu seen émission bii li ci ëpp ñooma. Ah, ndax ñoo leen koy may saa su nekk. ñoom de ah, duñu arrêté mu laaj. ñu nag ñoom Medina ba tey. ah ku bëgg tës. da nga war a ut puce expresso. expresso dëgg dëgg. moo yor day ñoom day. opérateur téléphonique bi day. vraiment ñoom ñooy sponsor yu musul bàyyi. waaw waaw ñoom day moom vraiment. ñoom day musuñu bàyyi seen émission bi. day moom vraiment day expresso daal xam naa ne daal. voilà li naan osé rêver daal gént ga nekk na dëgg. baax na daal gunge nañu ah waaw kii du Tooma. Cheikh Ahmed Ndiaye. ak a dégg. na sañse kat. xaritu Pauline Thiam. <laughs> Pauline Pauline nee na ma Ahmed dafa dégg. Pauline Thiam da la faa. fekk la ci boole de. daf la faa. waaw waaw fekk mu wax a <laughs> kan. mu wax ak kan. Pauline lu mu defati. ak yaay tuuti. lu ñu defati. ay tuuti kii lañ docteur Alioune Sarr CNG. <laughs> yaa tuuti mooy mooy. doomu yaay tuuti boo avancé. yaay tuuti la de. nga sotteeku biteel sotteeku sotteekuwaat mu dagg la. waaw. nga reculer alaaji yaay tuuti boo reculer mu dagg la. waaw. yaay tuuti boo jëlee saako te day am fu dóor toll nag. tu es obligé da ngay arrière di reculer mënu kenn mënu cee ñàkk. mais mais mais yaay tuuti. yaay tuuti boo demee gauche. mu ne la amoo droit. jege saako yi te mbër da ngay dem gauche dem droit. jege saako yi. dégg lool loolu. yaay tuuti nga dem na le droite na mu ne la a sës booy yegg ardo ma lay dagg. léeg-léeg léeg-léeg ku dugg nga tërëf def nii. voilà mu tërëf te mu dagg. mu dagg. yaay tuuti nga arrière laal saako mu dagg. Ah. te yaay tuuti mbër bi la fa waroon nekk. Ah. mbër ah. yaay tuuti man waaw yaay tuuti mbëri sax. non non mbëri yee fi bàyyi. waaw am naa la tuuti waaw mi bëre. waaw ko waa mais ma waa mais moom sax raison d'être mbër mi la. dëgg la su làmb amulee alaaji moom. waaw moom nan lay jëlee yóbbu kër ga. yàlla waay waay kii nañu wax ak borom këram. yaa tuuti tuuti waay. yaa tuuti. tuuti yërmande jëkkëram sama xarit laa. yaa tuuti. clé tuuti yërmande waay. clé wax ji tuuti yërmande. clé clé wax ji ko ko jege. te du njëkkeem laa nag. ñaata ñaata ñaata combat fi jeexee ci saako yi. Ah. waaw bëgg na de. alaaji lool sax. parce que boo leen jàppante règlement bi dafa ne boo leen xasee ba roofoo. waaw fu leen neex man ngeen dem. daanu gën a ne ca ginnaaw alaay. waaw c'est jàppante ngeen. jàppante ngeen ci biir daal. waaw boo boo leen ci biti jël la na. waaw mais boo leen jàppantee ci biir. voilà mais yaay tuuti nag même boo leen jàppantee leen wutalee saako yi. mën a jël amee bu amul yëpp da di indiwaat dagg leen. yaay tuuti boo doonee ci loos mu dagg nga kër sunu mu dagg la nga matt mu dagg yaay tuuti matt ci nopp yooyu sax moom vraiment moom ay armo non conventionnel mais day ëppal day ëppal nga ne bu ñu songo wuti saa bi ñu ci géew bi waaw ah, mu dagg day dagg yéen ñaar ñëpp nag ah, ah, loolu nag. loolu daal yaa tuuti nga xëyee. loolu dana waa de. tuuti loolu ak jaay doole la de. tuuti loolu aussi xam nga loolu tam kaala. tuuti nag eh, alhamdulilah boo eh liet na ñaa yow sàngala sàngala bi kañ la. fii di citoyen modèle suba samedi. suba la fan la. mooy léegi naa yow maa ngi jaamu yàlla. waaw waaw léegi naa maa ngi jaamu yàlla romb naa ko fu nii la fekk ma fekk ma daw vitesse moo tax taxaw ma nuyu ko sax. ndeysaan léegi naa ñaan léegi naa ñaan ndeysaan. macha allah macha allah macha allah ndeysaan. décoration parce que. ndeysaan macha allah. club modèle ak ñeneen gars yi africain yu bëri bëri. sixième édition citoyen modèle joxal ma chimère bàyyi ma jox ko bi jox ko jox ko jox ko mm, mm, mm, kii day ah liet naa ñaare moom moom moom jar na ko moom. liet naa day jar na ko. liggéey bu am solo lay def. waaw vraiment vraiment. liggéeyal yàlla. vraiment vraiment nee na nee na. macha allah nee lii nee na lii damaa da nekk ci jaamu askan bi leen liggéeyal. da ngay dell delluwaat ci ñoom. ndeysaan. ak a baax. ndeysaan. am na yàlla dëgëral taxawaayam. amiin yàlla ba laale. waaw grade yi yàlla na yokk. amiin yàlla ba laale. amiin amiin amiin. amiin. billaahi daa fi amul nag. dara fi amul jël ma lii <laughs> lan la lu bëgg euh, ah, kii kii kii nag moom yéen a ko def star waaye man du sama star de kan la kii Amène Ndiaye ah, moo fi ne de Amène daanaan la de day dogal na ni mooy man du sama star de yàlla day dogal na ni mooy Amène a ngi nii de yàlla barke rasulilahi dara amul Amène a ngi nii de li ngeen di wax de code code ngeen ci laal waaye baax na dara Ameth baax na. Ameth Ndiaye baax na. non Ameth dañoo dama dama ajuwul nëbb alaay. dañoo toog. waaw benn waaju baax a ma. waaw benn milliardaire. ni ma jëlal ni ma woon nangam ci kanam nga dinaa dinaa kii. boobu boobu la la rey. xam nga xam nga xam moom moom naanul yooyu mais ñun naan nañu yooyu. jëlal ni ma ko. ñun naan nañu yooyu. léegi Ameth nag ni ma. moom fekkee ko ci boole. la nga fekkee baaxul mënu ko la nga fekkee baaxul. baaxul tegal ko palaay fan. Ah, la nga fekkee baaxul. xoolal moom daa foog ni lu baax la ñu doon amet amet la fekkee baaxul. mu utul ma waxu homme d'affaires. <laughs> man ko bu fekkoon te woon ne 500 ñëw na sax. la nga fekkee baaxul. bu fekkoon jot naa 500. 500 yow mën ngaa lekk. chinois lekk ndax si chinois la fa fekkoon. la nga fekkee baaxul. waaye dama jot. fii réew mi toll. ak fi réew mi toll. benn laaj benn petit fanweer laa jot. waaw ah, yàlla xam na ni xoola ba ma demee ci boutique ba amu ci kilo suukar. Ah, yow kay hmm? yow kay tànnal ak benn petit fanweer ñun de. ah ok ma jógee fa. ma jógee fa am beneen kilifa. am beneen kilifa gu ne Amet njaay damaa soxla Mansour jox ma numéro moom itam mu ne ma fekkee ma ci boole. <laughs> alaaji kilifa kilifa googu Ahmed li muy bëgg a fekkee ngi bëri de. alaaji kii li muy fekkee ngi bëgg a bëri de. <laughs> dafa am ay cas yoo xam ne alaaji dafa am ay cas yoo xam ne. waaw ah. même boo même boo laalul sax. waaw ah. yow da ngay génnee fukk rek jox Ahmed. waaw fukk. waaw da ngay génnee joxe. alaaji fukk. non non loolu mooy. ak ci réew mi coono non non nga war a def. mën naa laa jox dix léegi nga ndékkee. non ah, non non waaw jël rek. Ah, waaw jox ko anataan naa. boo ko xewee bàyyi ko ah déedéet Ameth di borom baax. bàyyi ko Souleymane Faye nee na booy wut amoo. ah alaaji nag yaa bëgg mu xeeb ko de. alaaji loxo daa dagg. alaaji moom xeebu ko de yaa bëgg mu xeeb ko. alaaji alaaji sorante ak Macky de. man de léeg-léeg mu laal ma ay ah, gis man nii. billaahi. yàlla sàkku ci kaw suuf gu ku ma gën a tabe. alaaji gis nga maa laal dis nag boole ma. alaaji alaaji sa loxo bii. sorantewul si leen ma <laughs> ba mu juddoo ba léegi maa ngi soog a dégg ku ne alaaji da ngaa nay. ci alaaji laa ko dégg. ah nii ngay man bu yàggee tuuti ma wax la ko. allah na alaaji nag. alaaji loxo bi daa dagg. Hmm. alaaji alaaji yaay alaaji. yaay. Euh, doom yi nga jur yépp ci àdduna ku ci gën a tabe. Ah. doom yi nga jur ku ci gën a tabe. pour man am ngeen ngay rek da ngay woote. ku ci gën a tàlli. man damaa nay. ah nay kay. waaw waaw. xaaral ma woo sama taawu baay. alaaji nag bàyyi ay bokk la de. alaaji baat bi dina faw wax noonu. xaaral ma woo sa taawu baay sa baay. alaaji taal ma woo saa taaw ba. alaaji alaaji alaaji nag da nga may wuyu nag su may wax ak yow. déedéet déedéet déedéet mais kenn bokk na seede. alaaji mais nag da nga may wuyu su may wax ak yow. <laughs> waaw am naa léeg-léeg dañ naan dem weekend bi nii vendredi nga romb ma ci suuf. bokkal ma dara ah. waxal da nga koo a def léegi boo ko deful man dama na nga ne dafa am fu ma ko teg bul tax ma ko fenn barke rasulillah tegoo ko fenn so na borom Souleymane non nay nay daa xëy ma xëy waaw léegi joxal amee dix mille tey moom tey moom daanu nga waaw non non non waaw léegi joxal amee dix mille waaw léegi alaaj joxal amee waaye non non non alaaji ay allo yooyu rek. samay mbokk laay woo. nii nga fi defoon ba sa mbokk mi saaga fi. sama yaay du saaga. ay yéen ay ceeb doog na ngeen a gaaw di saaga. <laughs> Eh, waaw tey Modou. nii nga defoon ba Baye Diop saaga. parce que dañ may tuumaal li damaa nay. daa nay de. waaw. moo gën a nay ñib. jóobu juba kii mooy saa taawu baay ginnaaw saa baay moo fi nekk mooy saa baay. waaw laaj nañ ko nag. Diop may sa Diop may sa. waa léegi jox ko waa El Hadj kii di. déedéet. man kii samay wala samay mbokk laay woo. voilà joxel jiw xale ma woo. voilà joxel jiw bi nga laaj jiw jiw voilà jox Ahmed rek la mu jeex. ala déedéet ala doo fi woote waat de. ala doo fi woote waat de. waaye man kan laay woote waaye ala dama lay tey laa mus a dégg. alaaji dama ne man kan laay woo géej waaye wala ci sama mbokk rek. tey laa mus a dégg. nga naan dama lay ba mu juddoo ba léegi. tey laa mus a dégg. waaw joxel kii yéen ñaar ñëpp ay tam ngeen. non dama ne. man man fëgg naa ko sax Aja waaw Mor Soufia. joxewuma man li may joxe damay neex sama xol joxewuma li ko dama tax a joxe man may ceddo. waaye bi doon lii gerte la joxe bi. alhamdulilah ah non alaaj joxal alaaj joxal. Eh, ah, taxaw taxaw man man de dama joxe de joxewuma de. Ah, joxe joxe de. léegi maire Mbore Sow mère Mbore Sow. Ah, xanaa wokk wi na dawul sa yaram. yoxewuma sama yaram dafa mujj daw sa xalaat. grand Abbas Fall Pastef maa ngi lay siyaar di la nuyu wér mère Mbore Sow sama yaay maa ngi lay nuyu di la siyaar wér Fatim Dia maa ngi lay siyaar di la nuyu. ah waaw yow waa laal na ma fanweer laal na ma lii te am ta nga fekkee te ñaari junni amu ko ci jox ko. jox ko rek. Omar Ba ah, léegi. de biir na ma ne alaaj maa gën a tabe. ku ne sa bopp nga xam. ah man de man de yàlla bindu ci kaw suuf bu ma gën a tabe. man moom tabe moom man. man tabe ma tey am xaalis. man damaa nay. yéen ñaar ñëpp lekk naa si. non non non man dama nay de. dama nay lool. man moom dama nay léegi. maa yi daa illallah léegi. yee man de ñëwee maa ko samay mbokk man dama. man damaa loolu moom damaa nay nag naa ko jël moom cinquante mille. man de damaa ragal a woo samay mbokk man damaa nay seex. yow moom waxu moom yow moom li ma la nekk moom la kan nga ay lay li man de lii yàlla sàkk maa ci gën a nay. man de maa ay trois mois des. maa raw maa raw borom seulement bi man sama loxo mi ko daggul fii ci mbagg mi de. ca loosoo la dagg. laay lay la laa Simeer Diop. waa Simeer nag tey xëy nañu fi benn xibaar. boo xam ne bu neex la ci gone googu nga xam ne dañ ko fee tegoon. barki ngeen bu mm. te docteur bi doon ko euh, xarafal ba njuumte daal maanaam. am mm, ca waaw ñu ne ñu nag am na waa kër docteur yoo xam ni. ñu nga ci mm-hmm. liggéey boo xamante ne. Mm-hmm. la sotti waay. waaw ah, te daal ñu ko expliqué sax moom dana sotti moom. daal na xel waaw waaw waaw xam naa ne daal. Mm-hmm. la ca nekkoon daal buñ ko te mënul defaat tamit. Mm. Euh, ci mbir mi daal du yàq ëllëgam. Mm. duñ ko ci mm-hmm. defaat mais du ko yàq. te yéen semaine prochaine sax duñ ko ci defaat de. Ah, maanaam loolu mënuñu ko ci defaat parce que nit ñi tamit il faut ñu am culture. cër bu dagg ci ñoom. Mm-hmm. ñu koy def ci ci ci ci glace mos naa ko fex benn jour. Mm-hmm. di ko di ko di ko def ci glace parce que loolooy tax du lemu. xam nga par exemple nopp wala dara wala dara boo ko deful ci glace day day day day day wow mais ni def ni day lemu donc loolu médecin mën a defaat ci cër yi greffé ko ci. mais su nekkee ne def nga ko ci glace day day day day day topp ak sedd bi. bàyyi bàyyi noonu defuñu lool nag moo tax cër ba dafa yàqu mëntuñ ko utiliser. Oh. mais nee nañ ak noonu noonu mu mel nii yàqul dara. ci xale bi parce que am na donte njëkk nañ sauvé li ëpp moom moo di moom xale bi dina am fu mu tuure ndox macha allah mën niw dina ko génnee te yeneen ak yeneen yoo xam ne tax mu mën a am doom ëllëg dina ko def te jarul greffé jarul yóbbu fenn macha allah neen semaine prochaine lay ñëw rek ñu eggal traitement bi mu jeex. alhamdulilah alhamdulilah Diop. Simeer Diop santal ñu santal ñu. waa CTO waa CTO xam nga xam nga dafa dafiy jaar. ba dem ba ay juróom. waa mais Ameth yaa ngi fàttaliku seen test boobu. ma wax naan di ma traumatisé quoi. Mm. xale boobu ndax mujjoon naa wéer Lisa ndax mos naa feeñ. ba tey ñu ngi ñu koy message. dafa métti non Lisa moom. ba tey ñu ba tey. te nag la ca ay mbokkam mën def nañ ko ca de. Mm, def nañ lépp nag def nañ rajo yi wax dëgg yàlla nañu. dem nañu tribunal ah. am nañu avocat. Ah, wallaahi ah, te Lisa feeñul ba tey. feeñul ba tey. en tout cas de yàlla ko yàlla ñi rek la ñuy waaye daal. ah maa ni daal mbir mi daal fi mu nekk nii daal. nee ah. na nekk nii daal ah cam ndeysaan sama Seck ak ay grand technopole ans waaw li waaw yéen a ngi déglu waa waay bii Diallo maa ngi siyaar di nuyu ak Ibnu Guèye takk jóg eh, yow Mantoulaye ah waay Marème si wax naa ah. ko nee naa wax dëgg yàlla waaw ñoo def la njëkk ñoo sauvé xale bi. macha fa la njëkkee. ñoom ñoo sauvé xale bi. waa urologie ñu ngi leen di jaajëfal bu baax. ñoom eh, madame si sama waa ji mi ngi may dëggal sax ndeysaan mi ngi naan loolu yenn saa yi daf may dal ab cas dafay jàll. Mm-hmm. après di ma travailler. Mm-hmm. Mm-hmm. travailler may laajte lii fan la mujjee fan la mujjee fan la mujjee. maa ngenaar maa ngi lay siyaar di la bu baax a baax. comme Assane Seck comme mais bu jàll démb am na. après débat bi dafa suivroon am na ñu bëri ñu leen joxe seen xalaat yi. des justification ci yaay yi yaay yi yaay wax a wax man leen man de débat boobu kenn du ci. kenn du mu ci yóbbu. Mhm. doom daal doom daal mënut a yegg fenn fu muy weerante ak ndayam. Mhm. di ko saaga ak toroxal la moo tax ndey ji que ndey ji bu normal aussi dina nëb tasuma bien sûr. ak ndey de ndey ju jaaxle kii uti uti ndimbal. ndey ju jaaxle uti ay xeetu ndimbal la. en tout daal man daal moom man daal moom man daal la ma ci waxoon démb rek naa ne daal ñun daal duñ fi toog. Mhm. naan suñu yaay lii lañ ko defaral wala lee lañ ko defaral waaye xam naa ne daal. waajuru jigéen daal nekk na loo xamante ni nii ak waajuru góor sax. waajur ci boppam rek waajur ci boppam waaw nekk na loo xam ne daal ah naa ni daal ngeen war di seq giita ngaas daal ba mu war di daw ci rajo yeeg télé yi. Mm. ba marché di la fa tàgge. ah nekk nag waaw man sama papa bi mu dee sama yaay bi mu dee. waaw ñee moom moom punkal mi ci kooku la ko testé rek pour wan ñëpp ne leen fii man maa fi ne. dégg nga loolu. gisul bàyyam waaw kay. yaay ja waxi noppi dégg nga loolu. dañ ko doon yóbbu di fay pour ñu koy nàmpal du dëkk. di mm-hmm. yaay mi fi dese woon ak maam maam asafra maamam ji mu fi dese woon ak. dégg mm-hmm. ko defee nag gis nga ko. waaye yàlla mi ngi wan gars yi ne leen. man moom bagaas yi affaire yi man la. Mm-hmm. wallaahi ndeysaan du ki nga yaakaar ne moom la nii rek boo ne diw mii la diw mii la diw mii la yàlla day jékki-jékki sax rey diw moomu mhm. wan la ne la nag gis nga léegi nag xoolal nag ba xam di ko toppi bu dee li nga doon wax dëgg la ci yow mhm. Mhm. gis nga moo tax yàlla na yàlla dooli sutura day jàtta njaay yàlla na yàlla xare ci àjjana yi gën a kawe defaral ko suñu yaay yi nga xam ne dañu ñoo jiitoog suñu bàyyi ñu jiitu yëpp defaral ko suñu nijaay yeeg suñu mbokk yeeg képp koo xam ne jiitu nañu rek mi ak ci bitim réew yàlla waaw waaw. Ndiaye Dostala ndeysaan fekk ko ci biir suuf. yal na hmm. moom. xare ko aljana hmm. gën yaa gën yaa hmm. kawe. ku ko mën ñaanal ñaanal ko. alaaj te su tey bi tamit day xam naa Idrissa Tafsir Cissé joyeux anniversaire maa ngi lay nuyu di la siyaar waaw wax nga dëgg ndeysaan sama xarit mos na ko wax ah bi daal mhm. <laughs> eh, bi daal xam naa ne doy na waar te su tey bii mhm. xale bu jigéen bii nga xam ni nee na da wut liggéey liggéeyu jànq rek nii ci biir kër yi mhm. ah ba mu duggee ca génn kër waxtaan ak njaatige la. Mhm. ñu waxtaan bu juboo moom sax li ko kooku wax mantulaay rek waroon naa xalaat ne ndax li liggéeyu jànq rek la. Mhm. ah. Mhm. moom sax dafa dafa wax ne xaw ma togg rek la ak menace. togg ak soixante cinq mille. waaw menace ak fóot. Ah, léegi nag. menace ak fóot kese. lan digle woon soixante cinq mille. léegi nag bi mu duggee. loolu bañ ko nangulee bañ ko nangulee payoor googu la xelam war na tey. waaw teeyul nag de ba mu duggee nag ba tàmbali. ci lañ ne ko nag liggéey bi nag dafa rax. Ah? dafa am yeneen yu fi ne waaw. waaw de de waaw faral di am ay clients yu góor. waaw. da ah? waaw waaw waaw. mbindaanoog maase. waaw maase ci suñ clients <laughs> te massage te massage te massage gi tam dafa bëri ay façon am na massage yoo xam ne boo koy def euh, mën nga yor say sër daal wadu solo yëre waaye am na yenn ci massage massage yoo xam ne moom waaw daanaka rek la da nga naan dung sa ndey jure yaa ca yeeg massage plus léegi nag mu ne mu ne ko loolu du ma du ma ci dal eh. bàyyi waaye ci waxum daal moom gone gi daal ci waxam daal nee na daal kooku ne ko kër gi nag man maa moom te caabi maa moom fii doodoo fi génn. Mm. moom ci li wax. loolu séquestration la. waaw waaw déglu déglu rek. li mu wax. waaw ci li mu wax dégg waaw ca noonu daal la ca ne ca noonu la ca ne ca noonu la ca ne ca noonu la ca ne ba ma ma maari de taali woon na ca lor. Ah, waaw waaw fii daal laa génne. démb rek di dugg ci sama kalandoo bu ñaaw bi may gaare fii di ko liggéey see mu mu song si ma mu wane ko jigéen ki ni di commencé expliquer ma ne ko xaaral Mouhamed Diaw mu dikk ko defee comme que da ngaa ñëw pour wut si ndimbal léegi nag ëmb boobu mu ëmb mhm. lam ca bëgg mooy ku ko fat ndax seen waa kër xam naa ne bëggul ñu xam na boobay benn ñaar yemul ci bëgg ko fat de daañu ko xam nag de bu amee doom mu foofu laa jox doom ja rek te mën a daw eh. waaw moom daal ñaari daal la boole daal ku ko fat daal mi ñeenteelu weer ku ko fat. ba mu am doom ba amee doom may la doom. ji soog a ah, daal tey daal lii da tës bu doy waar. léegi bu defee vingt ans mu ñëwaat di laajte doom. <laughs> di doom ji di wër yaay ji. waaw naa ñu dimbali ko waay. te doom ji. ña ña fiy tësi fii ak ñaar fukki at. Hmm. booy bi dafa ñëw. <laughs> waaw <laughs> ñaata ñoo fi ah. ñëw daal ne sama yaay daf ma ah, tegoon ci kër sër ya. nangam sangam te fekk tësi jaaroon na fi. jaaroon na fi ñi fi tësi ñun ñi. waaw moo tax ñoo yee di archivé. archive da ciy baax de. ñoo yee di archivé yéen booy yéen booy. day fekk ñu retraité ñin. waaw ñun li ñu. waaw loolu la de boo ci tegee ñaar fukki at. ay ñoom booy Moussa ay ñoom booy Abdou ñoo fi nekk booba. <laughs> billaay su ko defee Ahmed dégg ko. <laughs> ñoom ñoom Chérif Moussa di tës. après après damay sol ay lunettes du ma xamante numéro téléphone. après après ñoom Boy Moussa lu ñu nekk di ko def. nga ñëw naa man de la yàqee numéro man la. man la man la di wax ngeen nii xoolal. après ñoom Boy Moussa lu ñu nekk di ko def. nga ñëw naa man de la yàqee numéro man la man la man la di wax ngeen nii xoolal. màgg ñoom ñoom boy Moussa ñi fi nekk dañ naan yow ñëpp Papy Noël <laughs> di ah. <laughs> sa bàyyi <laughs> ci yoo xam ne fekkee na lépp nekk directrice télé bi doom jooju sama doom jooju kii mu ñëw mucc bee dem faneen fu jox ñu jox ñu xale bu jigéen bi sumeer ñu déglu nag ay mbiram sama problème la mooy ni ko man damaa nekkoon di wut liggéey ci benn agence bi may wut liggéey ci benn agence après benn femme wootu ñu jox ma ko femme bi nag bi ñu waxaalee ba pare waxtaan ma ne ko lan sa liggéeyu kër mu ne ma sama kër bàcc bàcc la ak defar appartement après si kër dem si kër ga ndekk kër ga nekkul ne la bàcc defar appartement la ak bàcc ndekete këram dafa yore salon de massage ba mu eggee toog si la may dooga naan kër gaa ngi nii ma ne ko waa baax na mënuma fii nag sama salon macha allah fi yore te fii ku fi nekk tamit di def li wax kese nga fiy def sama sama saloo de macha allah te am na ñoo xamante ne dañuy bëgg a def macha allah pare def ay rapport di nga ko defal rapport te koo defal rapport da lay jox cinq mais lim la koy waxee du la ko defee nee noonu. yéen da ngeen waxaale woon loolu. waxaale ko woon luñ li ñu waxaale woon mooy bàcc ak defar appartement loolu la ñu waxaale woon kese mu ñëw bu si biir la may doog a wax ay ay massage ak ay joxe sa bopp. yow ko waxee lu tax bàyyi ko. mais wax dafa ma ne carrément fii de sama kër li ma fax kese moo fi am te bunt bi man maa koy tëj su ma la tëjjiwul doo génn kër gi te fii ne li ma wax kese laa fi moo fi am da ngay toog nga liggéey comme sa morom am na sa morom ba nekk si biir nekk si biir li biir néeg ba fekk fa ko waa mën ko yow kon liggéey bi moom lii la mu ne ma lii damay liggéey bi man na ko yow yaa ko accepté mu ne man de dafa ma woo ma ñëw bi sa kër gi après ñu waxaa ñu waxtaan bi ñu waxaataan wax ma li nekk si kër gi aussi man aussi ma accepté liggéey bi man ko man waxuma woon la ñëw bi tànk yéen quinze jours ngeen waxaale boo amee sax quinze jours bu la neexee nga xeete nag parce que sax maa ngi ñëw man na ko man li mënuma fee toog benn jour sax bu quinze jours mu ne ne ko lijjantee soo yóbboo na toog nga gérer liggéey bi moo la tiital moo nga toog sa bagage biir am na sa bu fa nekk après ma dem ma wax ak kooku kooku expliqué ma loolu noonu après ma toog moom tamit moom patron bi wóolu ma woon benn yoon sama téléphone nangutoon ma yor ko su may wax téléphone sax day sama wetam laa koy waxee te moom day parce que man samay lakk laay laak su damay envoyé ko kenn kooku lan laa wax nee te man wóolu ma di ma surveiller daal bëggul ma génn bi ma dem fenn sama téléphone sax duma moom lépp moom moo koy teg su ma waxee ak moom ba pare su ma amee benn client sax ne ma demal nga marché ko su may jàng sama téléphone mën a tegal fi sama wet. da nga jàng massage. jànguma massage mosuma koo def si àddina moom si moom moo ma ko defuloo mosuma kaa def. nga leen di massé est-ce que dinañ ci li nga leen di maase. ah ma dina satisfait parce ma lu ñuy maase. na di ma naan la ñuy defee ba amee client ne ma kay taxaw après mu ne ma defal nii defal nii affaire yooyu noonu sama na yenn client yoo xam ne bu ko amee moo koy séeral boppam moo leen di defaral macha defal leen tout après ma def noonu ma it na fa quinze jours ma war a wàcc ma ne ko tey mooy sama quinze jours ci laa war a wàcc. bala ngaa bala ngaa euh, Euh, yow première fois bi nga xamante ne nii am na client bu ñëw koo xamante ne massage plus la bëgg naka nga def. bu ma ko indil man damaa juum carrément parce que bi ma fa nekk bu damaa dugg si mu ne ma ñëwal mu ne ma summeekul ko summeeku ma ne ko problème mu ne ma patron bi mu ne ma ma ma ne ko summeeku pour lan mu ne ma massage la massage booy massage da ngay summeeku set ma ne ko mu ne ma da ngay mu ne ma marché la marché booy marché da ngay simmeeku ba set mën na ko mën na ko mu simmeeku da ngay simmeeku ba set mën na ko si mu des affaire de rapport la grand bi ma lii mu fi nekk xanaa waxul la woon li fi nekk ma ne ma ko xamoon say man lu ma ko jëlee si àddina. li ma ko nangu sama liggéey li ma naxawoon rek parce que léegi mu ñëw un mois monsieur de soir ma engagé ko. massage plus bi dafa amoon ay pourcentage boo xamante ne boo defee rapport da koy jox. voilà dafa ne woon nag boo adressé rapport da lay jox cinq mille mais moom du la ko defalee noonu parce que maa ngi di ngay xool ko mën ngaa def ak six yoo xamante ne ay rapport rek benn jour benn jour sax mu ëpp ko wun na ko sax ëpp te moom quinze mille lay jox wala vingt mille te xaalis bi lay jox yow si ngay lekk si ngay naan du la jox lekk du la jox naan si ngay lekk si ngay paye sa lekk mbëgg na ko lekk bi doo ko dem jënd day woo beneen cag-cag mu indi bi beneen jànk bi la doon wóolu mu génn dem jënd ma génn du ma dem reer bi cëk cëk moo koy indi bi même chose du nangoo ngeen génn dem fenn ki leen gisal la gënoon wóolu ko mu ndax kooku ñëw na xaqul yi mooy liggéey bu ko ak technique affaire yooyu noonu. d' accord yow agence moo bi da koy koy tere téléphone bi dana koy tere su ma nee damay woo suñu waa kër sax damay toog mu toog muy woote muy dégg te day enregistré li may wax. d' accord d' accord léegi xale góor yi ne da nga def ñoom rapport six personnes lañ par jour wala dana ko ëpp. dëkk des fois sax mu ëpp ko wallaay am na temps fois sax mu ëpp ko wallaay am na temps ba kii am na ñoo xamante dañu bëgg a def ñaari yoon man du ma ko accepté damay naan benn parce que affaire bi dafa liggéey boo xamante kenn xamul lu mu doon na métti boo xamante ne mooy classe yi lay jox gënal foofu su ñëwuma sama waa sama waa kër kenn xam si dara ndax dañu yaakaar na ko damaa ñëw pour furtu man loolu yëkkatu ma woon lépp yaa ma si boo ma waxoon dëgg bi dès le début ma ne ko man lii du parce que man lii xaw ma ko après de mënuma da ngay baxal naan ko parce que am ko fi defoon te loolu moo ko dindi dindi woon ma essayé ko essayé naa ma def ko affaire bi du ñut ci laa ko mën ko man la mu ne ma ndax amoo a yàkkal man ko xaw ma kenn ma ko mën a yàkkal dem si ñëw am na ñuy am garab yoo xam ne dañ koy dinde affaire yooyu mun na ko mën xaw ma benn maara xaw ma benn docteur mun na ko man loolu sama expérience xaw ma si dara après mu toog ma toog après si laa toog aw ma ku ma ko waxtaanal grand boobu benn grand boo xamante ne ñoo xamante ne koñ ko kese la am laa wut téléphone expliqué ko affaire bi mu ne ma xaaral ma boole ak benn grand affaire yooyu mais su ma ko booleeg moom dina la fexe utal solution et tout grand boobu aussi mu woo ko wax ko grand woo ma di ma laaj ma wax ko waxaat ko affaire bi même après mu ne waa léegi balaa ma lay jàppale xaaral ma dem kenn daw si xool ko ba pare ba xam ndax li ngay wax dëgg la wu noonu ma yóbbu ko ba si koon ba woon ko kër gi ñibbisi après mu dugg si biir ne daa def si marché da teg ko piège ba dem xam ne li may wax nii dëgg la salon de marché fa nekk sax non marchage police moo fa nekk après mu ñibbisi xaw ma lu muy def ànd ak fa ay policier yébal fa ay policier dina policier nekk fa di ko surveiller temps yooyu ñëmatul a def di ma di ma naan xam naa ne yow ma yoole yaa tax policier nekk sama kër temps yi di jàbbante di ma laaj ay xaalis yooyu yaa ko waral mu ne ko loolu sama nan laay def mënumaa tugg suñu gër xaw ma naka laay def ak moom biir bu xamante ne doom bu xam ne mënu wax ne kii mooy papa man man loolu moom mënuma koo digérer sama àdduna boobu gàcce dama ko dundaale mun naan ma waa yow daal yaa bi nga xamante ne dangay dem boole ma da nga waroon ñëw sama kër wax ak man ndànk comme ça ma utal la solution nga dindi biir bi kenn bañ cee xam dara ma ne ko man laaj naa la laajaat naa la nga ne ma loolu nga xam def nga li nga am yow nangu def dara ma ne ko man tamit nag sama xel yi la ma jox parce que man lii mënuma ko supporter ku ma dimbale moom laa see grand boobu na ma xaama woo ki ma boole ak benn daam kooku dina la wutal foo nekk léegi boo fa nekkee mën na ko fan laa fu ma nekk mën na ko ma bàyyi sama waa kër fii nekk fenn pendant mois boobu yëpp mun na dangay naan rek dangaa am benn contrat ay six mois affaire yooyu tànk instant yi yaa sa ay trois mois yooyu man ma dangay taggu sama waa kër ne danga am contrat six mois man mën ko waaye su ma fa demee est-ce que fi may dem dinaa fa am lu may el di liggéey bay am sama salaire parce que sama waa demee si man la ñu yaakaar ne sama doom mu nii soxla si man samay parents samay problème bopp yëpp ma soxla ko mu ne ma amul problème léegi dafa foo wax demee sa salaire comme comme il faut nga gérer say problème ñu yaakaar ne sa liggéey nga nekkee tout mun na ko waa bu dee loolu la man mën naa dem parce que lii bugguma sama waa xam ko ma def noonu dem foofu ma yóbbu woon nii am naa fa un mois presque après ma nekk ma nekk fa ba fin du mois ay le six la ma woo grand yi ma ne ko ah yow dinañ ma ne woon fin du mois dinaa am sama instant yi ba tey man may su ma leen décroché xawma la laa leen di wax. yow ana sa papa. ñoo ngi dëkk ba ñoom dëkk ba lay. yow kan nga nekkal fii. fii nii samay cousine laa nekkal ne liggéey di wàcc affaire yooyu. ma si ñoom de fi ma nekkoon sax li laay jógee nii direct ñëw fii ñëw ma dem suñu kër parce que ne woon naa leen carrément dama am benn contrat bu six mois léegi su jeexee man si laay doog a ñëw. la ma daal kenn kenn xamuma ko si ñoom kenn xamul la dama dama nekk Anita. d'accord léegi lan nga bëgg. léegi nag li ma bëgg mooy ni ko ku ma jàppale ma am fu ma nekk fu ma nekk ba am doom ku bëgg a adopté nga adopté ko su ma ko am tamit ma yóbbu ko orphelinat naa après ma ñibbi sama famille léegi maa mais bëgguma ñu xam ne man damaa nekk Anita te mënuma maa ñibbi yóbbaale. parce na si papa man loolu mënuma koo digérer kii dundaale sama àddina mënuma ko maa ngi ni sama waa ba fi may wax ak yow yónneewu ma leen ñaar dërëm te man kese la ñu yaakaar lu ñu mën a dundee maa ngi ni yónneewu ma leen tous sama ouverture école xale yi sax damaa lépp jënd leen ay fourniture rek ay jëndal leen ay sac affaire yu envoyé leen ko loolu moo ngi ni nekk pour sama ko xaw ma nan laay def ba gérer ko fu mu ne nii fu mu nekk daal di liggéey di am sama xaalis gérer samay famille man loolu laa bëgg ba keroog may am doom ma xool doom bi ñu xool liñ koy def ma doog bëgg ñu wax sama famille ma loolu laa bëgg. d'accord merci beaucoup. cëy ah ñoo ko déggandoo ak waa Jolof ci gën ak waa Expresso ñoo leen may seen émission mag bi ñoo ko déggandoo léegi nag moom hmm. ah nee na ndimbal lay wut hmm. képp koo xam ne daal mën nga koo fat ba keroog muy moom boppam rax ca dolli. te mi ngi ci suuf. ci suufam. mi ngi ci suuf fii ak valise am. valise valise. suuf ak valise am. centre boo xam ne nag man nga ñu ci dimbali fat. waaw waaw waaw kay ay centre décision bu muy jël nag moo koy jëlal boppam. est-ce que moom bëgg na centre. ah mais bu ñu amul centre. ñun ñun moom su su su suñu mën-mën. proposer ay centre ñu fatal nu ko lañ mën. bu bëggul centre dina ah bu bëggul centre tamit ñun ñun leneen mënuñu ko parce que moom tamit duñu jël benn initiative bu utal ko néeg duñ ko def. duñ ko def ëllëg bu fa defee dara doom ji wala lenn mu nekk suñu ay responsabilité en tout cas lu ñu mën mooy utal ko centre boo xam ne dinañ wóor nañ am na ñu koy surveiller en permanence léegi nag magum jëmm la majeur et vacciné la muy def doom ba. loolu nag moom moom mooy xool dama ko bëgg a jox diw dama ko bëgg a jox diw loolu nag bés bu ko defee loolu ñun sunu yoon du ci nekk. Mm. mais pour l' instant pour sauver ko sauver doom ji ñu centre bu ñu mën a dimbali fatal ñu ko ba mu accouché nga def te yàlla tax. waaw centre de centre daal mm-hmm. man daal moo ëpp sécurité ci man. mënees mm. ko tuwaxkal la. man daal moo ëpp sécurité ci man. ci mm. ba mu am doom. may la doom ja ah mm. téemoon jël doomam ji teeku nga xam ni doom ji demandé wu pour ah li ci tege nag moom li mu wax bu dee dëgg la mm. xam nga bu dul dëgg moo mm-hmm. yàlla la Mm-hmm. waaye en tout cas jugé wuñu ko sax ci ci ci ci li mu wax mais daal fan mu mën a yem mooy. comme mi ngi fii fanaan fi. ko fu mu nekk ba ah, ah, bu mu jël ci doomam nag moom moo ko jëlal. li ma koy xelal Mantoulaye. Mm. da dem jaay mbokkam. ok ah, ah waaw baax na. loolay dëgg li nga koy xelal. Mm-hmm. nga wax fan la dëkk. ñu jox ko paas. mu dem ci mu dem assumer responsabilité am. ko fee def du ko mujj c'est pas la fin du monde ni leen lii moom a dal ni mu nattu. dégg naa dégg. nit day dem ci say mbokk. waaw ah, da dem ñibbi ci mbokkam. loo loo am am gis nga digle bii nii. Hmm? digle bii nii. waaw du yow yaa koy njëkk digal du yaa koy mujjee digal. dëgg la de. du yow yaa koy njëkk digal du yaa koy mujjee digal te yow xam nga bu baax xale jigéen ñi li ñu capable. loolu moom xam nga ko bu baax a baax a baax a baax a baax. mën nañ fi ëmb Dakar accouché fi def fi lépp ba ba ba mu mucc dem ñibbi seen ay mbokk kenn du xam ne mës nañ ëmb bay am doom. na dem dëkk ba. Hmm. na dem ñibbi dëkk ba. waaw mhm. ah. Dakar gi sax na fi mbokk. wa wallaay maa la ko wax demal say mbokk du ñàkk ku la ku la ku dañ na ma euh, démb tey moom la ñuy lijjanti sax hmm. mais dañ na ma foofu moom dafa xaw a fees mais ñoom it buñ ci mënee jàpp rek te xam ne lii urgence la euh, Ndeye Maguette Camara madame Sakho bu dee mën nga ci dara ci ci ci dimbali ñu ci centre yi. Oh, man de la jox laa bëgg. dem ci ay mooy dëgg man man loolu laa bëgg. mais ah, euh, Cheikh foog nga xam xale yi de man la. Mhm. bugguma dugg parce que bugguma ko chargé bugguma wax dara ci moom. Mhm. mais il faut ñu xam xale yi li ñu capable tamit. Mhm. yéen xam ngeen ko jaruñu koy wax. ci rajo waaw koy dañu leen di xamal nii leen. li ngeen capable du réalité. yow li nga koy wax nii xam na ko loolu la war a def. Eh. keneen ak keneen digal na ko avant mu fi egsi. ñu ko def nag. Ah, da ko war a def loolooy logique bi loolu la war a def mais ah, baax na. ko def na baax na waaw baax na. alaay. Hmm? Hmm. gars yi dañoo ñëw da nga yàq sa digle rek de. wala publicité la. territorial du Sénégal ci diggante mille la. mais da nga yàq sa digle rek. allo waaw allo. oui hmm? El Hadj. ci loo ne. oui ça va ça va. waaw foo nekk nii. voilà merci beaucoup sur côté de Yoff bëgg a progresser vers la passerelle de Nabil Choucair foofu la oto yi xaw nañoo tàkk ci as boobu la situation maanaam des ralentissements pour ñu bàyyi Nabil Choucair bëgg a progresser utali boobu échangeur du côté de l'autoroute APH sortie bi jafe du côté de Mariama Niass du péage bi route nationale ak ñu bàyyi ko ci parcelle bi des ralentissements vous se dégager fekk hauteur euh, de l'échangeur Sénégal Japon aussi ginnaaw bu ngeen xalantiré point Cheikh Coblé échangeur mën ngeen jël liberté extension sur les deux pas trop de soucis mën ngeen progresser au télé point liberté si à El Hadj. ay jaajëf Anta Diarra Mbaye borom Dakar Plateau maa siyaar acca sumer. Jollof Chicken. Quelqu'un d'entre vous a-t-il l'explication du succès de Jollof Chicken au Sénégal Jollof Chicken succès bu mu am ci Sénégal kan moo ko mën a expliquer ah loolu neex rek la ak saf Jollof Chicken waaw waaw ku nekk di laaj kañ la Jollof Chicken di ubbi ci sama gox le 7 octobre Jollof Chicken dina ubbi Kër Massar le 29 octobre Jollof Chicken Malicounda Mbour waa Mbour yéen a ko doon laaj waa Malicounda yéen a ko doon laaj le 29 octobre Chicken Malicounda di tiji Kaolack le 5 novembre ah mbokk yi Kaolack le 5 novembre lay doon le 12 novembre ñu daal di dem Bargny waa Bargny yéen a doon laaj seen Jolof Chicken Jolof Chicken bu Bargny pare na le 12 novembre lañ koy tiji le 26 novembre ñu daal di dem Tivaouane ah waa Tivaouane Jolof Chicken le 26 novembre lay doon le 10 décembre ñu daal di dem Louga ah mbokk yi waa Louga loo ci entrée Louga Louga loo lu muy yaatu yaatu yépp Jolof Chicken rek laa fa xam kon nag mbokk yi Jolof Chicken bu Louga 6 décembre lañ koy tijji ah dama ni Jolof na réew mi kan moo ma mën a expliquer le de Jolof Chicken au Sénégal. Jolof Chicken ak croustillant tenaire commandel rek ñu livré la. L'Union européenne en partenariat avec la Ligue sénégalaise contre le cancer organise une grande journée de dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus et du sein le samedi novembre au stade Léopold Sédar Senghor à partir de 8 heures. Vous êtes une femme âgée de 25 à 57 ans Bénéficiez de ce dépistage réalisé par des médecins spécialistes et de bons de mammographie gratuites. Venez sans rendez-vous à partir de 8 heures au stade Léopold Sédar Senghor. Tous unis contre le cancer. day man daal benn solution boobu laa ci am. dem ci mbokk yi xëy kay. xëy na moom comme que mooy madame solution. moom xëy na moom mu pexe. mu jéem a pexe. waaw. man daal solution maam dem ci mbokk mbaa centre yi rek. comme maison rose nag nee fees na waaye ñi ngi jéem a lijjanti fu ñu ko teg seen centre bi. waaw daal ñaar yooyu laa ci gis. ay ajaratu ci lowaat nag alaaji nee na ñu ngi ñaanal seen soppe seen xarit imaam Daouda Mbaye waaw géejawaay gunaas moo war a jiite tey jilee ajjuma ji macha allah. macha allah yal na yàlla dëgëral taxawaay. amiin yaa rabbal aalamiin yàlla doole fasaa. amiin yaa rabbal aalamiin doole wér gu yaram bu wér. waaw suñu imaam boobu mbay. Mm-hmm. ah waaw waaw. waaw ah, waaw ndaw ndeysaan nee nañ ko ñaanal bu baax ndaxte ndaw la. noonu la. yàlla na mm-hmm. borom karaw yi ñu ngi tarkalla tarkalla. Mm-hmm. ok moom moom moom kii de maa armé sax doo fa gis ay mag. waaw ah, waaw moom day xam naa ni day moom day mbay mi li day uti naag suñu imam ba li ca bët Saloum réew mi jàpp nay ma dóor ko ba dama dama dama tànk bi. damm waaw da koo damm moom la turbin bi. gis naa ko ci bi tey de ko da koo dóor da koo karaate ay yëf ah, ah, xaw ah ah en tout cas imam ba door na nay ma de xam naa ne nag ca nodd bala. daal xam naa ne ak ca damm damm na imaam imaam lan la nga jotee naayim bi nga xam mooy xaritam. ah yëpp <laughs> laaj na kaay ma de ah. problème yu bare bari day dox seen diggante de yenn saa yi. yenn saa yi day dox seen diggante rek. ah moom mën na wàññi nekk xaalis ko mën na nekk leneen. mën na nekk xaalis mën na nekk jeeg bi ci ko. j'espère que ah mën na bañ a nekk loolu. mën ah. ah. na bañ a nekk yi du meer Ndumbé ah, kii bi ko gis nga la ma nodd. imaam nag. waaw. Ah. Ah? déedéet. ah déggoo li ma tës bi daal nañ ko jël <laughs> Assane Fall nee na tës bii sa tës la nañ la ko bàyyal nga seere ko. kan man waaw. Hmm? ndeysaan Assane. <laughs> sama xarit nga woon de. ak baax xarit la ba léegi. a baax Fall. pompiste ak ñoo bëgg. kenn nañ la nañ la ko rek yow kii. kenn du moom. galaw nee am na benn jigéenam boo xam ne nee na bëgg na doom ji. ah. waaw non doom ji moom ñëpp bëgg nañ ko laaj. déet doom ji nag moom doom ji de ah, ah, ah, assistance du ko du am dara. day ko joxee doom jeet ñaar fukki fan ñaar fukki at dana ñëw war waraat doom doom ji daal moom daal doom ji moom bu naka taxawaalu nii jëmul fenn ah. moom ñi ko mën a fat moom sa doom mais mais ñeenti weer la alaaji wallaay Cheikh am na xale yoo xam ne nekk ci keneen moo ëpp sécurité ci ñoom que nekk seen i propre parent waa léegi dama ne ñeent ko dese na juróom waa léegi dama ne cinq de dana cinq mois waa léegi dama ne léegi ñu boole ko ndaw si waa ndaw sa kan ndaw si soxla doom yi ñu boole ko moom wala dama leen di laaj rek la l'assemblée ah man man man man. Ah, man euh, déedéet ñoom déedéet xam nga la ñoom buñ koy réglé dañ ko yóbbu. Kaaba non dama ne. Kaaba dama ne. bu ko comme eh. ñoom ñaar bu dee da koy jox. waaw. danañ dem ci kanamu police wala gendarmerie police wala gendarmerie non mais xam nga ne doo fàttali non mais bu dee dama ne. Mhm. assemblée bi lu ci lan ngeen ci xalaat. man nangu naa. la commission de médiation et d'arbitrage yéen ñett mhm. la. man de ci li ci li nga njëkk wax. waaw la d'accord. mooy mu dem ci waajur dellu ci ay mbokk alaaji mhm. mu dellu ci ay mbokkam. kon Mantoulaye Diallo nga la majorité l'emporte. Ah, bu dee am na kenn koo xam ne tamit moom bëgg na ko mën na ko téye. ah bu mu ci dugg. après beneen ah. problème lay a ah, da ngay teg bee non naa seen kii de man man li ngeen wax man moom laa ànd de. mais dama ne la ba wut solution. may ma indi pour prox ndool yu bëri. ay seconde ci des ma léegi moom mii war ko jël. Hmm? na ko waaye itam man la may proposé tamit ndaw si du ko bëgg. parce que bu doon da koo jël yóbbu ko ba ci ay mbokkam mu woon ko ne samay mbokk nii waaye attaluñ ma mënuñ ma téye mbokk yi dénk ko ko mu daal di fay toog waaye moom nee na mbokk yi yëguñ ko te bëggul tamit mbokkam yi yëg ko ah. fu mu làqatu ba ba ba fa doom jëla bëgg mani la mani la am na ko fi jaaroon genre kaay yi mooy ko sëriñ ba ëmbaloon yéen ñëpp yow ak sama ak alaaj da ngeen ne na dem ci ay mbokkam waaw ngeen ko digalee dafa tax mu def ko du fii ñëw ci buntu rajo bi ba ba wasin fi doom ji man maa mujj force ko gëtëm ko ci ambulance bi fekk sëñ bi fële côté. ko demoon ci sëñ bi tàntam yóbbu ko woon ci problème mu sëy yi mu amoon tam dëkk Louga bi mu amee doom ci buntu rajo bi. ba ñu duggee ci ambulance bi maa ko gëtam Cheikh. Mhm. mu may jox ay numéro yu baaxul di ma ah, jox di ma jox. ma koy gëtam ba di ko menacé. dama ko mujj dama mujj mer ba xamatuma fu ma toll. ba ma ko menacé bu mujj bi la ma jox numéro. Mhm. Euh, patron patron moo ma jox numéro grande sœur am patron bi xamul ni dafa ëmb grande sœur bi xamul dafa ëmb. yaay ja xamul dafa ëmb man maa leen ko yëgal. xam nga lu siiw na jaratul nëbb. mooy mooy mooy mooy mooy ki sëñ bi nekkoon. mooy ndaw si wusin fii ko te madame Tall non sëñ bi xamuñu woon fu mu nekk boobu. ndaw si wusin boobu waxuñu sëñ bi fu dëkkoon. test boobu kay nag kii na moom na test bu fi jàllale woon te bi doon ko ñaanal te nekkoon côté fecc feccukaay boobu ñu doon fecc ñu dem ñu ma doon waaye ramen non non du kooku bokkut ak ñaanu sëñ bii moo gën a yàgg boobu ci buntu bii la am doom xool alaaji jox na ma mat vingt faux te baa ngi tàggoo yàlla na yàlla dolli jàmm ci réew mi <laughs> dañ centre bu mu dem ah, bu nangul dem ci ay mbokkam ñu ko centre bu nangul dem na dem ci ay mbokkam boo gën a plan A plan B ah man jëluma benn responsabilité kii moo nekkoon ci de nag miin màkka mi ne tul mun a war ak a ngi nii toog baax na sama doom ji nee na centre ba xam ngeen ne moos moom li wax loolu laay def na dem ci mbokkam alaaji loolu laay li mantu laay wax laay def yéen li ngeen wax du ma ko def baax na waaw alaaji bu doon boo nekkoon mu dem ci si mi mu dem moo fi am yaay taaw bu jigéen loolu léegi wax ma li nga centre centre di dem centre danaa fa dem amul lu ma jagal voilà ala kan la dendal sëtu ko tedd ki borom maamu barrière or ba ci Medine Bandasim Mbadi Khouré Serif Ahmed Aïdara Karara monsieur le maire de la ville de Guédiawaye ak nii toog di bàyyi Mantoulaye te mooy jël euh, la dernière décision hmm. mooman la léegi kon centre voilà di leen jox kon di daje altine incha allah <laughs> jolof chicken ginaar yu safte neex moo leen doon may seen émission tës Zik FM, ma radio. Zik FM. yaa ñu ko jaral yow Zik FM. programme yu neex a neex sans dilemme. Yerusalem ak waa Jérusalem yow yaa Bali FM Zik FM gis nga boo doon jigéen man ni la je t'aime je t'aime boo doon sonal benn jaww benn jaww benn benn daal.